c'est de la haine benn groupe nit la. dafa gaaw de benn groupe nit la. lan kaa wax fii te yàlla tax benn groupe bu nit la bu seen xol mënut a nangu yow nga ñëw déjjati nit toog nekk ci app nga ne non yow sa app buy jeex kenn du la déjjati bu la nit ñi mënut a déjjati yàlla déjjati la te yàlla bu laa déjjati moom bul sonn. Hmm. mooy gën a tar mooy gën a metti kon intelligence mooy nangu logique. Mm-hmm. nit ñi ne dañuy tànn ki nu bëgg tànn yow bàyyi nit ñi ñu tànn. Mm-hmm. bàyyi leen nit ñi ñu tànn. Mm-hmm. booy di sudur nag da dem ba ca xol ya bu dee aay nga mën nga. boo amee talent dëgg boo aayee fii ngay dindi parti parti bi fii ngay fexe un parti légalement constitué Sénégal waruñu toll fu ñuy nee dañuy dissoudre parti parce que nga utal kay lay def ko précipité ko accéléré ko. ba pare ne kenn du ko wax état wu Sénégal bi newu si dëgg. dafa am doole di ko jaay. yore administration di ko def loolu la ko neex. waaw léegi nag ci biir loolu la ñuy wax ne maam Diarra su fekkee danoo bëgg Sénégal avancer. il faut que kilifa yi jiite suñu réew bi nga xam ne jàmm rek lañ leen yéene ngal la ñoom tam ñu delloo ñu yéene boobu le mal du Sénégal mooy que un peuple est qui souffre, mais qui, semble-t-il, est mis dans le carcan de l'animosité par quelqu'un qui le prend comme un ennemi. Le pouvoir actuel du Sénégal prend les Sénégalais comme ennemis. ci attitude, qui comportement, qui structuration, c'est-à-dire que tout est fait pour cadenasser les gens. nan nga mënee comprendre ñetti fat ñetti fat nga ne da ngay tëj station yi parce que ah ñooñu du ñu liggéey. nga ne chaque instant gouverneur ne peut-être ne bon pas pas de circulation euh, les motocyclettes là yéen ñëpp toog leen mais sa ci économie boo xam nit ñi dañu war a dund am na koo xam ni bu jógewul fii yëmbal wala parcelle wala je ne sais où dem centre ville du am dépense. ñoom mm-hmm. dañuy yokk noonu rek bilaay. donc finalement fàtte ngeen Sénégal yi fépp. ku ko waxul do da wuy ma billaahi wallaahi tallaahi ku nekk biir Sénégal waxuloo état bii fi nekk fàtt na sénégalais yi ñu dund fàtt nañu sénégalais yu bare ci ci ci fànn yu bare yu ñu yëg ak yu ñu yëgul ci ci ñàkk gestion bu baax ci presque animosité créée pourquoi parce que dañuy xeex xeexu politique boo xam ni warute wéy ci lan ci lan ci juste benn réalité bu tegu boo xam ni moo di ne àdduna bi dafa nekk di changer. Mhm. noo am koo xam ni bëggul Sénégal changer bëggul Afrique de l'Ouest changer je vais m'expliquer Mame Diarra. Mhm. ñi ñu jàpp ñépp ñi ñu jàpp ñëpp yàlla na la yàlla libéré. amiin Pape Alec ndax yàlla moom comme mooy borom kun. Mhm. bu ko neexee léegi léegi fii bala ñuy wax wuy xuli. léegi bala ñuy wax information tombée mu ne saye yàlla ne jeex na. léegi yéen kilifa yi ñëw setaan nag bu leen neexee ngeen ne dañuy wax lu nu neex barke salaatul fatiha ak alxuraan. billaahi wallaahi tallaahi yàlla mën am na mën-mën boo xam ne bu ko neexee fi ngeen toog la koy jeexal léegi kilifa yi ngeen xam ne yéen a ngi toog duñu setaan ñuy wax suñu xalaat ci réew mi ngeen lànk ne waruñu kaa wax lànk ne sénégalais yi waruñu tey jii nii. autorité sénégalaise da war a accepter les sénégalais yor ay pancarte marche pacifique ne d'accord ñu ci li ngeen di doxal loolu moo la dëgg c'est ça la grandeur mmh. c'est ça l'intelligence c'est ça l'humanisme l'humanité mais malheureusement les enjeux les intérêts et les intérêts de qui man du ma yore sama njaboot di leen xeex pour pour ab étranger mmh. loolu mooy débat bi Sénégal dañuy xeet Sénégalais yi pour kenn benn tubaab ci lan ay calcul ay lobby ay intérêt ndax lan Sénégal dafa bëri alal am na ñeneen ñoo xam ne xam naa seen ay yaay seen ay baay ñoo ñu gën seen ay papa seen ay nijaay ñoo gën Sénégalais yi man du ma nekk njiitu réewu Sénégal boobu di nangu lool. Mm-hmm. qu'est-ce qui se passe de 60 à maintenant CEDEAO bii tey. di menacer Niger lu musuta am Afrique moo am te moo nekk di am te kenn mënu si dara. africains yi ñoo sonn. Mm-hmm. population yi ñoo comprendre sonn. Mm-hmm. yow nañ changement bi by force c'est irréversible. léegi nag quest qui se mm-hmm. lii la ma la may maam Diarra ma wax la li li xew pour nga comprendre. nga comprendre. parce que dafa dafa dafa Sénégal dafa jot nu waxante dëgg te yàlla tax dëgg bi xam nga lan la wax li fi ne parce que ñàkk wax dëgg bi moo ñu indi fii xam nga tey maam Diarra su ma xëyee gis mais confrères ñoom ñëpp ñu bind terrorisme attentat ngeen baal ma terme bi ak yëg-yëg bi c'est foutaise xam nga lu tax lu musi musiba kenn ko indi ci réew. déedéet. kenn du ko structuré di ko organiser. Mm-hmm. xam nga terrorisme fan la déparé fu ñu ko daan waxee ci jamono. à un moment donné te dëkk Amin Gemayel ba Liban chaque jour ñu ne placé nañu bomb placé nañu nangam nangam dans l'histoire dans la vérification de l'information et des informations kan moo ñu daan jox info bi terrorisme au Liban terrorisme à Beyrouth kan ak kan moo ñu ko daan jox RFI France Télévisions noonu ko daan jox chaque jour ñu màgg ak loolu. <laughs> bu ñu seetaanee Amadou Mbaye Loum mu dem ñu ne yooyu attentat te fekk ñoom ñoo ñu ko annoncé ñoo ko daan organisé voilà la réalité pyromane bi mooy organiser musiba yépp su ko organiser ñëw taxaw nag ne oui il faut ñu régler problème bi alors que mooy seytaan bu mag bi et les Africains en ont marre de cela les Africains en ont ras-le-bol ras-le-bol boobu jur lan fi ñu toll tey maam Diarra CEDEAO ne maye nañu. un laps de temps quelques jours ñii di ñoom euh, waa Niger yi ñu delloo nguur gi Mohamed Bazoum mm-hmm. Burkina Faso mm-hmm. Guinée Mali mm-hmm. ne bu ngeen di songu Niger nuy dal seen kaw te léegi nekkatul Burkina façon nii Niger nii Mali nii léegi xamalal la Russie la comme yéen CEDEAO yéenay français yéen yéen bëggu leen seen bopp yéen vous vous aimez pas vous n'aimez pas vos populations vous n'aimez pas vos peuples vous préférez vos amis taxaw leen nii ngeen song Russie taxaw na leen nu xool nan lay deme il faut que nos dirigeants acceptent le le vent de changement ma bàyyi ngaa la il faut que suñu kilifa yi takk seen fit nag. fit bi ñuy jàkkaarloog ñun di nu faagaagal nan ko takk wan tubaab bi ne ko ñoom am nañu personnalité foofu la Ibrahima Traoré doon waxee ci Russie Saint-Pétersbourg fi mu doon waxee mooy nanu doon ay góor nag ñun ñun nanu doon ay góor yàlla wala ñuy jël suñu yëfi dox yi di faat suñu ay nit noonu nañ doon góor yàlla jàkkaarloog tubaab loolu mooy personnalité. Mhm. vous avez la possibilité de massacrer vos peuples vous avez l'arme vous avez tout ce vous voulez vous avez mais du intelligence bis dina ñëw dañ leen di dugal ci bàmmeel yàlla na yéex te rafet yàlla na leen yàlla sàmm ak seen njaboot. mais faw nag ngeen delloo nag nun nag suñu dignité ñu nekk ay nit nag raay raayal beeg kii bi dañ cee sonn dañoo sonn ci leader africain bu jóg ñu ne nañ ko éliminer parce que il protège les intérêts des africains on en a marre. yéen ci biir loolu tubaab di am lu mu leen dee bàyyal yéen ngeen gàddu loolu di dund di enjoy ak seen famille les autres non non non ku fi jóg ñu dóor la ba kenn génn fii on en a marre. Mm-hmm. songu leen Niger bu dee mën ngeen am ngeen fit songu leen Niger moom am lu ma la jox maam jaara d'accord. Mm-hmm. bala may dugg ci li xew démb. Mm-hmm. Euh. en attendant ma li commentaire yi. Mm. voilà. Euh, Alassane Kane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Lamine Nara ndongo seen Biboulaye Touré ñu ngi lay jaajëfal ami